ñu ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di sant si déplacement bi waaye tamit di leen massawu di leen ndokkeel si weeru koor bi ñu jóge di leen balu ax dama ne ñun ñoo leen di balu ax parce que ñun ñoo leen amel ax <coughs> su leen seen coobar bi ku nekk seew yaa ngi tëdd sa kër jaaxal sa kaw lal waaye yëg-yëg dafa foor kon damay faral di wax ne wootee nit ki bàyyi léppam ñëw fekk si la kooku joxoo ko paas bàyyiloo ko dara këram mu jóg ngir kóllëre defe naa ne waxuma sax weeru koor waaye chaque jour war nga koy balu ak président Macky Sall bañ koy dénk réew bi dañu amoon yaakaar si moom mu taxawal programme bo xamné plan yokouté jël engagement né dootuma yokk dund dinaa yokk salaire yi parce que damay wàññi impôts yi comme que nag dañu manko né moñu doy nañ ko jox suñu cadeau fal ko président juróomi at rek la defagum ñu bu ko juger juróomi at mëna tabax Sénégal ak dëkk nu mu yàqoon ni tegoon fi ba ay ay ay groupe kër yi jënd ay groupe pour courant tailleur yi daaw ñu ñëw boulangerie daaw ñu am dara insécurité bi il faut que nit ñi sentir ne président Macky am na lu mu yokk ci biir Sénégal ndax dëkk dafa yàqoon tasaare xaalis bari woon na fi puukare bi bari woon na fi sàcc bi bari woon na fi ak lu bari ak lu bari waaye léegi liggéey moo xew il faut nit ñi liggéey dama yàgg wax ne du Chinois waaye du Japon ñoo ñuy liggéeyal suñu ñu Nous te population Sénégal juróom fukk yi ak juróom-ñaar ay jigéen lañu soo deful si jigéen yi jox leen ay moyens jox alal da ngay nax sa mais du a dem kanam tant que jigéen nous seen loxo te lañ taxaw euh, campagne

yow nit doo ko fal ba pare di seetaan ñu koy néewal doole su dee la wax gëm nañ ko néewal doole bi yëpp du lenn lu dul changer loi yi fi nekk ba mu ñëwee la mu changer ña jalgati mu teg leen si yoon te lépp si yoon la ko teg déggu leen ko benn yoon mu wax si ñooñu nag ñi ne seen doom bëgg nañ assemblée nationale suñ ko changé ñu delloo ko axam et cetera complot boo xam ne nguur gi si loxoom te ko si ay loxo yoo xam ne caax-caaxee réew Sénégal ndax dañ si am ay firne yu wóor toll nañ fi Sénégal ñëpp doyaloon ay milliards nga luy ko benn bateau pour pour ñaari semaine nit ñaa ngi bëgg a dee xiif temps yooyu courant amul dara amul corniche bi corniche bi lañ fa def si alal la mu tabax rek mu ne si tabax mbaaw yëpp ay ay ay tali mais ñu yemale ko si benn pàcc bu ndaw yéen ku jaar si corniche bi tey bala nga faa jaar ñaata at ko nañ gëm ne ki nga xam ne tey moom lañ yaakaar wóolu ko teg ko fi nañ ko jàppale dooleel ko assemblée national ñu fexe mu am fa majorité man gëm naa ne mbaaw fi ñu toll nii amatul opposition bu am solo waxtaan naa ak sama rak muy le maire Ablaye Pouy démb bi ñu demee si fondation Servir le Sénégal ba ma gisee fekk moom mu ngi def tournée di wër médecin yi dama nañ def daf ma ne nañ def benn tournée ñaari tournée mënut fi am ñëwal ñu ànd ñu def benn tournée mu jàpp sama loxo ñu ànd wër ak ministre Fatou Daniel Diagne bi ñu paree mu def déclaration si turu ñëpp docteur Alioune Diop mu ngi fii aw ma responsable affaire ngi ak man am samay nit responsable des femmes parce que liggéey bi du lenn lu dul bu leen war taxaw si njaboot gi d'abord seen koñ seen biir kër kenn ku ne si na fexe gëm mu wóor ko ne kooku am na carte d'identité wala carte électeur parce que foofu la combat bi commencé noo jàppale nit su doon mbooloo bi junni junni junni junni nit lañu nga bugg a jàppale sa leader te junni yëpp ñaar fukki ñoo si am carte électeur loolu naxaate la soo leen bëggee ñu jëm kanam bu ñuy nax nañu jaral ku si nekk nga dem jëli sa carte électeur su fekkee da nga am ay jafe-jafe. wala mbooloo ba nga nekk nga cambar xool ñan ñoo fa am su dee téeméeri nit wala ñaar fukk wala juróom kese ñoo topp sa ginnaaw yow sa responsabilité en tant que présidente nga jiite mbooloo boobu donte ñaari nit la fexeel ba ñaar ñooñu mu wóor la ne ñoom am nañ ay carte loolu su la wóorul déjà yow sa liggéey am na lu si manqué moo tax soo fi jógee. bëgg naa kenn ku ne si yéen ak mbooloo ba nekk si ginnaawam defal leen ma lis kenn ku ne si yéen nañu defal benn lis ñaata nit ñoo nekk si ginnaawam ñi si am carte d'identité ak seen numéro carte d'identité ñi amul ak lu tax amuñu ñu fexe naka lañu mun a def ay pexe pour ñooy mun a am seen carte loolu mooy premier liggéey bi jeunes yi tamit naa leen wax ñu dugg si seen biir jeune bu si nekk ne ko yebal si benn yaayam wala tàntam mu jël lissam jàppale ko wër ay nitam ñu xool ñan ñoo am kàddante ak ñan ñoo amul ñu bañ a am loo xam ne daf ñuy bett ndaxte nag opposition waxuñu de waaye ñu ngi dugg si biir nit ñi ñu ngi dugg si biir kër yi ñu ngi waxtaan ak kilifa yi ñu ngi dajale ay kàddante daf leen jaral lu nekk ndax loolu la ñuy gagné élection du topp sa ginnaaw leader rek di ko tàccu mbaa di di di di meeting di caravane président Macky Sall nee campagne bi bugg si caravane di tànqal nit ñi di tàccu di fecc nee na bugg loolu nee na bugg si meeting dajale ay mbooloo boo xam ne gépp am ñu ay carte nee na bugg loolu nee na kenn ku nekk su ñun ku ko bugg jàppale nga gëm ko ak sa mbooloo dugal si biir kër yi nga ñaax nit ñi nous génne seen carte électeur sa nit sa militant bu amul carte électeur xamal ne kooku du militant parce que les politiciens day am carte électeur quand ku carte électeur doo politicien déjà passé pour deux politiciens politicien da ngay feesal mbooloo wala da ngay wut financement wala leneen mais deux doo deux politicien kooku que ce très clair y a des la lenn lañ soxla si yéen président Macky Sall lenn la soxla si mooy seen carte la ngeen soxla si moom yëpp nag man la ma si woon dama koy def su ma tëlee moom mu def ko waaye munoo ne kii damay ànd moom dañuy politique bëgg naa mu jëmale ma kanam te moom la ko fiy bàyyi wala lay yokk liggéeyam defuloo ko dem jël sa carte électeur maa nga wut ko yaakaar naa ne la ngay wax kon day des kon fexe leen si côté boobu. ngeen góorgóorlu si bu baax a baax bi may ñëw léegi nag waxtaan naa ak samay nit ñu xalaat benn proposition ndax suñu def campagne il faut ñu xam fan lañ jëm ñu mànkoo si ñun ñëpp campagne boobu <clears throat> mooy programme bi ñu war a tëral démb la commencé tey si la bokk ak bés yi di ñëw ba le 28 bés bu ne am na def te ñun ñokay defandoo responsable bu nek sa gox koy defal sa parce que sa liggéey la sa participation te amna liggéey dañ ko def première dame samedi ak dimanche dafa une consultation médicale gratuite indi fi ben plateau bo amul dispensaire bu nekk mbaaw bu am plateau bu rëyee noonu bépp feebar boo yaakaar ñooñu mun nañ ko faj lañu ñu mënul faj dañ ko yóbbu hôpital te ku ñu faj dañ lay jox garab ku ñu faj jox la garab su jëree sax ñu évacuer la yóbbu la Maroc wala France wala beneen dëkk fondation bi ñoo lay paasal yóbbu la mu bàyyi dëkk yëpp ñoo indi ko ba suñu biir tànk defe naa ne lu mel noonu su fi am tamit demul nuy xëy na keneen moo koy def waaye première daam si boppam am yërmande ak la muy def si dëkk bi yëpp defe naa kooku jar a ñaanal la ndaxte daf ñoo woo ñun ay leader ñun ñëpp daf ñu woo nañu nañ ko tànnal ku nekk fukki troisième age ay màggat yoo xam mu ñu déplacé wu te dañoo feebar ñu fekk seen kër faj leen ñu tànn bañ ko defee ñu tànn fukki nit démb barki démb imaam Abdou Aziz Bousso mu ànd ak oto bi wër ñoom ñëpp ku nekk ñu fekk la sa biir kër faj la jox la ay garab su ko neexoon loolu du ko si fekk waaye mu ngi jàppale borom këram mu ngi jàppale askan bi dafa xam ne wërsëg ba ko yàlla may xajul si moom mu koy baaxee nit ñi. ku mel noonu lañ soxla si réew mi te ku mel noonu moo jar a ñaanal na ko daw mais première dame dafa xool ba xam ne lii jaaduwul munu si dara mu ne bàyyi mu faj moom fajal boppam ñañuy jéem a bodd mu xam ne ñoon ñu ngi liggéey te xam nañ ne seen taxawaay dafa am solo te mun nañ jëmale président Macky Sall kanam ñooñu la woon ne ñu leen ma jàppale leen kon loolu mu ñuy jàppale ñun ñëpp la ko jàppale kenn ku seen na jàpp ne loolu yaa ngi si biir xamu nu mu toll waaye su doon dërëm sax day mel ni ay milliards la su ñun ndax yëg bi ku mel ni premier dame su la yëgee ba woo la ne dama la bëgg a jàppale si liggéey bi ngay liggéey kooku rafetlu na taxawaay ba nga xam ne yaa ngi koy def kon mooy information bi ma doon joxe waaw li si des nag mooy calendrier bi démb wax naa ne ak barki démb def nañ consultation assemblée générale bi foofu lay jéxalé il faut ñu xam naka lañu ñuy suñu bop janax ci campagne bi yeen pexe la teural ngir ndam bi soxla ñu mën ko am wax njëriñu élection yi ak lutax ñu wara a jàppale président Macky Sall mu fal mu am assemblée majorité koku lu am solo la bis bu lajjee fofu jàppale na 2019 du fa am dara. lol moy nguur gi jeex ñun ñep lañ dem tëdd nelaw ndax nag nous nak fait parti ñu fi wala benen gouvernement ñu nous dañuy de fa politique may chance nañ ko gungé liggéeyal réew mi suñu bop ba su premier mandat bi deuxième mandat su ñëwé day day porte à porte yeen dañ def ku ne si yeen responsable Adja Mariou dina ma jox liste bi dina gis kilifa yi nekk si koñam ak imaam yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine gi kilifa diine kilifa aada yi képp koo xam ne ñu ngi koy déglu wala borom njaboot la yéen dem waxtaan ak moom ñi nga xam ne dañoo jar ñun ñu def délégation dem nuyu leen waxtaan ak ñoom kooku dinaa ko def waaye yéen seen bopp yéen njëkk tàmbali liggéey bi. ku si nekk na ma defal lis boo xam ne koñam imam ba fa nekk wala responsable wala chef de quartier wala borom kër wala notable ya fa nekk yoo xam ne dafa jar ñu dem seeti leen parce que ñoom ñoo uf njaboot gi waxtaan ak ñoom nañu def benn liste liste boobu nag nañ leen di seetee mooy talaata ba alxames dinaa dugg biir mbaaw talaata ba alxames maa ngi biir mbaaw waaw mbaaw nañ préparé xam na ñoom ñoo may dugal si kër këraat yi il faut ma xam li ñuy liggéey foofu ñoom ñoo dugal si kilifa yi ku si nekk koñ ba nga nekk kilifa ya fa nekk yaa ko xam nañ dem seeti lo mais na nga waxtaan ak moom avant ñuy ñëw dinañ tàmbale tamit fa ñuy jeexale dinañ dem si littoral bi xale yi nekk si géej su fa jógee jaar njóobeen waa mbaar mi waa Aysa Ndoyen ak waa Ndoyen ak ñi fi ñëwoon démb yëpp les amazones dimanche laa bëgg dimanche dafa am ay mobilisation ñuy def maanaam am na visite à domicile am porte à porte <clears throat> dañ ko def ñetti fan ñeenteel fan bi ñu def mobilisation xumbal bàyyi naar yëngal ay tànkam léegi samedi ak dimanche samdi ak dimanche maa ngi biir cité Ndeye Marie porte à porte porte à porte seeti kilifa yi fi nekk waxtaan ak ñoom ak njaboot du ñu bàyyi kenn kooku liggéey waa cité Ndeye Marie la ak mardi maa ngi kër Mbaye Fall côté Farsam maire Farsam yaay ma des kër Farsam mobilisation lañ fay def fay def mobilisation na préparer mobilisation mardi prochain